papaam nekk fi bi ñu toggee añ ba pare papaam ne ko maa ngi dem dëj ba bàyyi ko fi moom mu génn dem ci suñu dëkkandoo yi. nee na fa la nekk ba magam bu góor bi liggéey woon wàcc bi kooku wàccee ñëw mu ñëw ci kër gi kooku léegi kooku añ xam nga ba pare ne ko kaay tëj buntu kër gi damay dem nee na génn magam di génne mu ne ah, xaar ma fay télé bi kon delluwaat fi ma doon waxtaanee nee ci la tourné gis waa taxaw ci ginnaaw mu ne ko eh yow yaa ñëwaat suñu kër nee mu ne ko ah kon xàmmee nga mu ne ko xàmmee naa la kay mu ne ko xaaral su sa mbay ray la ma ah wa intention ko kay la ndax xam nga ku jël nit ba ma ko ci néeg xaw ma essence la ko sotti xaw ma diluant la ko sotti taal néeg bi ba pare caabi ko ci caabi ji yóbbu ko loo bëgg lu dul mu dee ray ko rek la ci jublu woon. Hmm. kon donc yaa ngi naa ray ko la ci woon kon c'est-à-dire xale bi mucc na. waaw mucc na mucc na. quelle situation <laughs> lakk-lakk bi expliqué lakk na lakk na loxo yi lakk na ak ci kanam gi mais yàlla def na sutura ndax koo xam ne dañoo taal néeg tëj la ci soo génnee di wax ni di nettali nit ñi di dégg rek dañuy sant yàlla. dañuy sant yàlla boo nee loxo bi lakk na kon da doon jéem a génnal boppam waaw da doon jéem a génn nee na nee na bi mu ko tëjee da doon fëgg bunt bi di yuuxu pour bëgg ñu dimbale ko jàpp ci loke bi gësam ko ba loke bi damm mais amul force mën a dajji bunt bi mu yuuxu ci la dëkkandoo yi dégg yuuxu yi ñu daw ñëw gis fumée yi di génn ci lañ dajji bunt bi mu daanu ci biti raam génn dëkkandoo yi ñoo ko jël yóbbu ko hôpital après man ñoo ma woo informé ma ci laa doon mu nekk lu doy waar lu yéeme lu yéeme ndax nag euh, buñ nekkee ci réew ñu ne réew mi am na sécurité lu toll ni ñeenti yoon kenn nit di ñëw ci benn kër à chaque fois bu fa ñëwee sàcc dara dem njëkk na fi ñëw sàcc fi ñetti téléphone dellusiwaat sàcc ñaari téléphone am mbuusu jesner bu def vingt neuf mètres dellusiwaat sàcc téléphone xale bii mu def lii tey samedi ba la passé la njëkk ñëw bi mu ñëwee xale bi gis ko mu menacé ko ak paaka bi xale bi yuuxoo mu daw cëppeelu dem ci laa ko wax sama frère sama frère bi semaine bi yëpp ci kër gi lay fanaan mais ñëw fi démb mu xaar ba décès bi am ñu dem ci décès bi ci la profité ñëw def nañ ne sa frère ba semaine bi fi la doon nekk kon mu mel ni kuy def lii dafa xam exactement seen plan man kay vraiment man je me dis que est ce que dëkkul ak man wala mu am bokk koo xam ne mi ngi dëkk ak man diko diko di informer ci man parce que heure buy dugg ci kër gi day fekk duñ nekk ci kër gi heure bu fi dugg di fi sàcc dina calculer ba xam ne kenn nekk fi toujours noonu lay dem xaw ma dafa dëkk ak man di ma surveiller boppam xaw ma ni da koy informer muy am information ci kër gi pour mën a am accès ci kër gi. waaye lu weesu sa doom ju làkk làkk boobu métti sax néeg ba dara dese ko. néeg bi dara desu fi lépp lakk na ba jeex yére yee dàll yee lépp lakk na ba jeex sama doom yi seen diplôme yëpp lakk na lakk na ba jeex. ci lan bëgg a sàcc rek. ci bëgg a sàcc. moom kay est-ce que sàcc la doon wut moom kay bi yoon bakkan la doon wut bi yoon kay yemul ci sàcc rek bakkan la doon wut. tey ban message ngay lancer à l'endroit des autorités puisque yaa ngi koy wax sàcc bi am na boo xam ne sax ci période couvre-feu la guddi la fi ñëwoon bii tuur nag bëccëg ndax gàmb la ñoo def lu muy def. waaw li may li may wax rek mooy ñu dimbale ñu Kër Massar bi ñuy dund metti na ndax nag nit damaa yaakaar ne boo duggee ci sa bii kër ak sa njaboot tëju war ngaa mën a mucc mais bu fekkee dañ lay fekk ba ci sa biir kër di la def lenn li fooy muccee fooy rawee tey boo jàppoon sàcc bi dóor ko gaañ ko yoon ñëwee dal ci sa kaw ne la waroo koo gaañ te sàcc bi bu ñëwee ci sa biir kër bëgg la rey wala mu bëgg a rey sa doom léegi nañ ñu taxaw nañ ñu dimbale parce que ci biir couvre-feu bi 23h45 la waa ji kër gi yore paaka menacé xale bi tañ ne ci état d'urgence lañ nekk dañoo nekk couvre-feu 21h man ñemewumaa génn sama buntu kër parce que bu ma génnee ñu jàpp kooku mën a dox ba ñëw fekk sama jaboot sama biir kër di leen menacé ak paaka léegi loolu nan lañ ko mën a ñi nga xam ne nee nañ ñoo ñuy sàmm ñooy sàmm suñu kaaraange keroog bi mu ñëwee menacé xale bi ak paaka bi ma demee gendarmerie loolu laa leen ko waxee ma ne leen yéen a ngi seetaan sàcc baa ngi baagante di dem di ñëw balaa ngeen di bàyyi dafa rey nit sama kër yàllaa ci def sutura mais kii rey la doon wut léegi nag man su ma jàppee bi fajal sama bopp ñu ne ma waroo fajal sa bopp sàcc bi bu ma jekkoo ma wala mu rey sama doom maay perte ci ban réew lañ nekk moom nekkatul ci kaaraange parce que wax na ne nit ki xàmmee naa la te kooku itam xam na ne xale bi xàmmee na loolu moom a gën a tiital xale bi fi mu ne nii kaaraangeem parce que xale bi fi ne nii non seulement dafa dafa dafa traumatisé wu. mais nekkatul ci sécurité. parce que ku ne nit xàmmee naa la mu dugal la ci nekk taal la nga rëcc. leer na la ne kooku dina dellusiwaat parce que dina xam ne ki ma jëloon intention rey ko deewul kon dinaa demaat pour rey ko fi mu ne nii bakkanu xale bi ci xottu na génn dajeeg moom mu gaañ ko parce que moom xam na ko ñun xamuñu ko mën na ko gis gaañ ko mën na ñëwaat ci kër gi fekk ko moom kese gaañ ko xam ne dañuy naan couvre yenn heure waaye mu mel ne xale bi moom léegi ci état couvre-feu lay ne même ci journée sax mënul génn du ko neexee mënul génn parce que ki la fekk sa biir kër di di 16 heures 17 heures def la nii kooku soo génnee bëccëg dajee moom nu mu lay def wax dëgg yàlla doy na waar métti sàcc bi dafa mel ni moom dafa dafa dañ ko ne yow ci kër yii nga dëkk xaw ma ndax c'est accès bu bu facile bi fi am moo tax ndax day case escalier bi lu mu parewul day ñëw tëb fii dernière fois bi ñu ko yuuxoowee si case escalier bi la tëb cëppeelu ñoo ngi ko gis bi muy cëppeelu foofu lay dugg si kër gi. mu nekk daal loo nga xam ne jaaxal na leen ndaxte koo xam ne xàmmee na wax na itam di yaa def li. waa doy na waar trop instant bii ñun dèjà avant muy def lii sax boo tëddee guddi doo nelaw muy yëngatu si biti da ngay jàpp ne moom moo tabaat ñëw si biir kër gi wala dara parce que tellement nu mu fi ñëwee léegi moo tax chaque jour presque day tëb si biir kër gi boo tëddee doo nelaw da ngay xooli ba bët set dangay dem liggéey sax am problème parce que lan sa xel du dal. amoo ay nelaw yu doy mooy loolu instant bi ñëpp a perturbé wu ñëpp a ma mu ne sañ wax ni euh, c'est l'effet de trop en fait. ah bii moom dafa dafa dafa jéggi wax bii moom c'est autre chose ndax man mun naa comprendre nga ñëw ci biir néegu kër nit nga sàcc li fa nekk yëpp dem ñu ne sàcc bi ah daa ñëwoon ci kër gi sàcc na waaye yow nga ñëw nit ki gis la nga ne kon xàmmee nga ma nga jël ko taal ko si néeg lii moom beneen affaire la xaw ma sax nan lañ koy nan lañ ko mën a tuddee au fait xaw ma ko. ma gi moom la bon kàddu bu mujj bi ñaan autorité yi rek ñu yokk sécurité ci dëkk bi parce que lii nii yëpp insécurité la. ndax jotul sax c'est une occasion ndax quartier bi di woote nit ñi tamit mu am ay comité de quartier bi genre parce que tey bu dee gendarmerie yaa ngi koy wax mën na la matal yéen nii bon askan bi tamit ñoo am nañ seen rôle à par rapport à ça. waaw bon fii amoon na ay gardien ka koñ bi dañu defoon ay gardien di leen fay chaque fin du mois kër gu nekk nga joxe deux mille deux mille ñu euh, gardien yi ñoom ñu xool nan lañ ko kiwee seen biir mais dañoo dem ba ci fin bi ñi fi dëkk si boppam rendre compte que ne gardien si boppam ñooy sàcc xam nga loolu tamit beneen affaire la. parce que mun amuñu moyen pour dem ci société de gardiennage jël fa ñoo xam ne mooy loolu ñii nga mën si kon yi ñuy porté volontaire ne ay gardien lañ ñooñu nga mën a recruter ñoom ñu defoon fi seen groupe ne ay gardien lañ di garder fii nii mais bizarrement kër yi nii taxawal si koñ bi wala taxawal si koñ bi fii nii nga laajteeg ban kër lañ musul sàcc kenn bu la nee man keneen du la ne ak man fii yëpp dugg nañ fi kër yi yëpp sàcc yi dugg nañ fi te loolu ça fait des années ñii ñëpp ku ci nekk sa plant moo ngi gendarmerie ba. sa kàddu moom ma jugul. comme lu ma la wax rek ñu yokk vigilance ñu yokk effectif bi fii Kër Massar gendarmerie bi s'il le faut ñu defal ñu police comme ça.